Thank you. situé à et Nord, en face du camp militaire Tiaroy, juste à l'entrée de l'autoroute à péage. Cours privé Dr Cherdien ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays Alors, n'hésitez pas à choisir. Les niveaux sont répartis comme suit élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77

maa ngi leen di nuyu kenn ku ne euh, di ko sant di ko gërëm di nuyu également euh, représentant aussi communauté bi nga xam ne nii nekk nañ fa tey ñu nekk ay jeunes yu dynamique nekk ay jeunes yu gëm seen gox ñoo am pas-pas parce que fan yii paase rek lañ defoon benn opération bu mag muy opération set setal ci école yi yëpp donc euh, muy mouvement Daara Xudoos ci kanam ñi leen fi représenté tey ñu ngi nii toog. Euh, moy Sidiya ak euh, adam gay dëkk fi également si gox bi donc di wax na rek euh, initiative bi ñu jël du initiative bu Bes, parce que depuis Covid bi bu mu commencé ba tey ñu ngi euh tant bien que mal lu ñu am peu de ressources ñu joxe suñu participation symbolique à la communauté parce que combat la bo xamné combat ñëpp la sante ministère de la santé et de l'action sociale bi nga xamné ni fa la nek Euh, également ci dynamique boobu lañ nekk ak état bi aussi en même temps donc ñu ne euh, il faut une participation communautaire de toute la communauté pour mën a xeex mbas bi di euh, Covid 19. c'est vrai que bi ñu ci jógee amoon na ay jéego yu ñu defoon yu bëree bëri ba affaire bi xawoon na wàññeeku bu baax a baax a baax ci lañ jël sax pour ubbiwaat école yi ba xale yi toogee presque trois mois jànguñu. loolu weesu ñu ubbi école yi mu dajeeg aussi période bi xaw a tuut sedd tuuti affaire yi pandémie bi recommencé waat muy lu tuddee la deuxième vague. léegi nag bi loolu amee peut-être Europe la gënoon a feeñ mais temps bien que mal seetlu nañ ne aussi fii ci Sénégal cas yi commencé waat na di ñëw ndànk-ndànk parce que bu ñu seetloo temps fan yi yëpp euh, li ñuy compter ça tourne autour de cent cent cas jëm ci kaw tey rek on cent huit cas. communautaire yi aussi bari ci torop té xam nañ école bi aussi c'est un milieu euh, qui est très sensible parce que ubi nañ enseignants yi ñu ngi jàngale xalé yi ñu ngi ñëw di jàngis xalé yi aussi nek une cible bu vulnérable donc euh, ñu gis né xeyna jappalé bi dina baax ci école yi par rapport ak renforcement bi nga xamné ni nii war na mën am en terme de mesure barrière ci bir mesure barrière yoy la euh, y a le port de masque donc nous en tant que citoyens de Pékin Nord nek aussi ay acteur ci biir euh, euh, communauté bi ci biir commune bi bokk également ci li nga xamné ni moy communauté Pékin Nord bi yore ay école yo xamné ni ñun fi lañ jàngee presque primaire yépp fi lañ ko défé école publique donc normal na en tant que ñu nek ay ndaw ministère de la santé nekkaale en même temps ndaw communauté bi nek ay acteur politique ñu ñëw aussi ñun aussi japp ci liggéey li ñu jappé si liggéey bi nak c'est juste de manière très symbolique parce que ñepp xam nañ né daanu dajul suuf té jamono ji fi mu toll euh ku ci né bu ci bayé loxom rek xëy lu ñu bëgg mënu ñu sutural ba lolu baña baña euh école bi baña nek vecteur de propagation ou bien de contamination donc lolo taxone ñun jël initiative parce que demb digënté démb ak tay dafa xawna na xat daal lu bëri jégalu nak nag bu baax peut-être lu ñu teelul communiquer pour nit ñi mëna gëna xam mais aussi euh japp ne geste bi aussi mo am solo n'est-ce pas donc ñu def ko def ko pour école bi def ko pour communauté bi motax mané nañ jël initiative ñew pour une première parce qu'il y a trois écoles cinq bi mu ngi fi amna ay élèves machallah benen primaire aussi mu ngi fi. mais ñu commencé rek tàmbalee ci fi nga xam ne ni mooy école monsieur Boy ñu ñëw dafa leen une remise symbolique de masque masque bi nag ñëpp xam nañ ne masque rek doyul parce que masque war dafa war a ànd ak war a ànd ak leneen leneen mais yàlla euh, moom moo mën te ñu ngi ñaan aussi fii ak peut-être diir ñu mën a andiwaat peut-être leneen yeneen masque wala yeneen gel yoo xam ne dinañ ko mën a jox euh, euh, aux élèves jox ko au corps enseignant donc lolo taxone ñu ne nañ ñëw fi tay seet len du yagg ñu def benn remise symbolique n'est-ce pas en attendant peut-être mu amane yeneen dotation yu gëna bari yo xamné xam ni après dañ koy andi mettre ko au service de l'école donc lolo la amoon de manière succincte wa ñu baña a euh, tardé euh, pour ñu contribuer rek par rapport ak li nga xamné ni moy xex euh, coronavirus bi xex pandémie bi ndax mu joggé fi une bonne fois ma ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant